ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alkiram wa man istafa asaram wastanna bi sunnatihi ila yawmi din Sama FM mbokki jullit yi mbokki auditeurs Zik FM Sama FM 92.3 nekk ci diwaanu Thiès waaye lëkkaloog suñuy diwaan ñu ngi dellu di nuyu ñëpp di leen ziyaara dellu di leen balu xaq di sàkku ñu bal ñu ko ñaan borom bi subhaanahu wa moom mi am jàmm am salaam am sutura yal na yàlla defal ñu ko àdduna defal ñu ko alaaxira nuyu kilifa diine yëpp ziyaara leen ñaanal leen suñu borom yàlla dolli sàmm leen aar leen yàlla yokk seeni kem yàggal leen fi ñu yàgg feek ñoom lool sax ànd ak wér di ñaanal kilifa aada yi waaye ziyaret chef coutume yi ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla dolli defal leen jàmm yàlla kàttanal leen jagleel nuyoo bu baax fa tabaarakalla ñi nga xamante ñoo nekk si hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp ñu koy sooxale yal na yàlla saafara leen ñu nekk maison d'arrêt et de correction ñaan suñu borom yal na yàlla génne leen fi ñu delluwaat seen njaboot jagleel nuyo bu baax it a imma yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi yëpp imam Moussa Ndaw carrière imam Moran Mbay randu leen ñu nuyu imam Mor Sin si diwaanu Sofrako imam Abdoulaye Ndiaye si diwaanu Peyku Séeréer nuyu imam Babacar Ndiour Grand Mosquée de Thiès nuyu imam eh, fa tabaarakalla eh, asbaru njigéen kër ma elage waaye jagleel ñu wax imaam ahmad sa ñu yóbbu ay ima yi des yépp rek ziyaara leen ndokkeel leen ñaanit fa tabarakallah di ñi nga xamante ne yor réew mi di police nationale gendarmerie nationale les ASP agents pénitentiaires service des en eaux et forêts les soldats d'économie les soldats de feu ñoom ñëpp fa tabarakallah ñu ñaane leen suñu borom yàlla doole kattanal leen yàlla defal leen jàmm defal kon tamit même vigile yi fa tabarakallah si sécurité bi lañ bokk ñoom ñëpp ñu nuyu leen jagleel nuyu le directeur d'embassi bi ñaana ko suñu borom yàlla defal ko jàmm eh, banque la agricole fa tabarakallah eh, mu yilif ko waaye nuyu personnel bi yëpp it ziyaara leen waaye noonu nañuy ziyaara bu baax it waa Sonatel teg ko si loxo madame laax waaye nuyu fa tabarakallah banque yi nga xamante ne ay dëkkandoo yéen yëpp nekk fa si intérim bi noonu nañuy jagleel nuyo bu baaxit a ah képp koo xam bu waxtu yu jotee rek nga ànd ak ñun si seen eh, eh, émission yóbbalu koor seen rajo Zik FM ngeen ànd ko seen mbokk Moussa wadd ñi nekk si taxi yi yëpp ñu ziyaara leen ziyaar bu baax sëriñ El Hadj Fall bu Tawa Fall di suñu magu daara fa tabaarakal la nit ko dal nit ku baax nit ko yaru ndax fa tabaarakàlla ku min bayam mbaay naar fal ca taw fal laaji bu melee nii ah ma nga ca yoon wa wàccul yoon wa kon ñu ñaanal ko suñu borom yàlla na yàlla taxawu ko nuyu bu baax Cheikh Abdallahi Jaxate ziyaara ko bu baax moom it ñaanal ko suñu borom yàlla defal ko jàmm imaamu Jabaas imaam Mansour Wade imaam Daawuda Mbay ñoom ñëpp ñu nuyu leen xaaji taala Thiaw nuyu bu baax Mbay Wade mi nga xamante ni mooy chef de village Coxol yàlla na yàlla taxawu ko Sama FM Baye Mansour Sall si diwaanu Thialé tund Tuyaawoon Baye Baba Sall ñoom ñëpp ñu nuyu leen nga dem tund Morala nuyu baax Serigne Mbaye Wade sëñ Bàcce Wade Maada Ndiaye waaye dem tund Pout nuyu baax soxna Xadijatu Diallo wuñ ko Adja Mam Bousso Kayre Serigne Omar Diallo ñu ziyaara leen ñaanal leen borom bi yàlla defal leen jàmm waaye noonu nañu ziyaara ñëpp rek ñi si tataayet fàttewuñ leen moo xam chauffeur moo xam receveur moo xam passager yàlla na yàlla defal leen jàmm waaye defal ñu ko defal ko fa tabaarakalla bépp personnel rek ñaan suñu borom yàlla na yàlla kàttanal ñu yàlla na yàlla dolli sutura yi jagleel nuyoo suñu directeur Hadj Ousseynou Ndour yàlla na defal ko jàmm yàlla na yàlla fay ko xolam waaye defal ko personnel njabootu këram ak njabootu àll yëpp tata umpaañ ñoom ñëpp nuyu leen ziyaara leen uuf njaboot gi fa tabaarakalla te kenn onkul kon ñoom ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla na yàlla taxawu ko fa tabaarakalla ba njaboot gi fekkee njariñ yëpp rek waaye ñaanal waa Zik social ñoom ñëpp seen taxawaay bi nga xam ñu ngi koy def saa su ne ànd kook seen président Hadji Cheikh Sedat Diop fa tabarakallah ànd kook seen i seen i jigéen ñoom ñëpp ñu nuyu leen rek ziyaara leen sëñ Baba Diop fatabarakallah ñu ziyaara leen ne leen borom yàlla na yàlla taxawu leen mbokk fa tabarakallah ñu del si waat nag suñu wàllu daara oustaz Ibrahima Mbeng ñu koy ziyaar moom it ko gis léegi ci kër gi fa tabarakallah ñu ziyaar ko soxna Xadijatu soxnaam Gay ñu ziyaar ko jagleel nuyoo fa tabarakallah oustaz Mouhamed Seck xam na moo ñu fi wutu si kanam buñ fi jógee Muhammad sallallahu alayhi wa di jagleel nag ñu baax xaaji Moodu Mbodj fatakalla ziyaara ko ñaanal ko suñu borom yàlla yàlla dal ko jàmm taxawu ko yàlla aar ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu waaye nuyu soxnaam it eh, aja Maguette Fall ziyaara ko ndokkeel ko waaye jagleel nuyoo bu baax it fa tabarakallah suñu waay jur ya ca kër ga aja faatu Mbodj ziyaara ko bu baax mooy adjoint am di loxoom di bras droit am di lépp nuy personnel ba yëpp rek ziyaara leen ñaana leen suñu borom yàlla na yàlla taxawu leen defal leen jàmm noonu nañ koy ziyaara Africa Mobile waaye jagleel ñoo Serigne Bachir Kane nag sa diwaanu Daaru Kane ñaanu ko suñu borom yàlla na yàlla defal ko jàmm ah mu ngay waajal nag ndogu yi fas yéene ko yóbbu nag mbaaleen eh, seet nag eh, sëñ ba waaye fa tabaarakalla eh, fa tabaarakalla yàlla na yàlla dolli defal ñu jàmm waaye defal ko tamit fa tabaarakalla ñoom Baye Cheikh Baye Cheikh Kane ca mbaaleen nga xam jumaay baayam jaa ko ñor fa tabaarakalla waaye nuyu xalifa ba nak bu baax Serigne Mor Kane yàlla na yàlla leen defal leen jàmm kon fa tabarakallah mbokk yi nuyu nañu yaayu daara ja soxna Xadijatu Gey ziyaara leen ñoom ñëpp saw ñu ziyaara leen waaye nuyu soxna yi ñoom ñëpp waa daaru kan fa tabarakallah yal yàlla taxawu leen mbokk kon ñu del si waat suñu wàllu daara euh, suñu téere bi nga xamante ni mooy mat no asmaawi nga xam Abdul Baari alans alancement yi moo ñu ko fàggul waaye teg ko ala mazhabi imaami Malik ibnu anas radiyallahu taala anhuma tey nag madame Bal ñu fas yéene dugg nag ci buntu bi ñuy jàngal wàllu julli juma muy baabu salaatil jumaati buntu bi moo jàngal julli juma julli juma ndax limu mu làmbool war nañ koo xam li nga xamante ni ki mu war war nañ koo xam waaye war nañoo xam la ci surut yi nga xamante moo war si jumaa war nañoo xam la nga xam moo ci ay arkan ay ponk ci biir jumaa waaye war a xam ya nga xam mooy aadab yi di teggin yi ci biir jumaa waaye war war a xam ya nga xam mooy axzaar li nga xamante mooy ngant yi nga xamante ni bu la waree boobaa jumaa da lay teggiku yii yëpp nag ñu fas yee koo jàng ci biir téere bi bay ci Diop bi ginnaaw buñ ko ziyaara bu baax sëñ Ibrahima Ndiaye fas ne koo bàyyi xel ñaan suñu borom yàlla na yàlla defal ñu si dégg ak topp ndax lii lépp nag a ah, dafa tegu suñuy loos te mbokk ñu war koo xam waaye war koo jàngat yàlla na yàlla taxoon na Alaaji Mor sopp na bi ñu ngi koy ziyaara bu baax ñaana ko suñu borom kon mu ni baabun lii buntu la buy wax fii salaatil jumaati si julli juma mu ni wa salaatul jumaat julli jumaa nag fardun farata la bàyyil xel li ma la wax bàyyi Mamadou Ndiaye mun la salaatu julli jumaa nekk ñun ko mu ni fardun farata la alal ahyaan si jëmm ju ne non jëmm ju ne julli jumaa da farata ci yow waxuma la xale waxuma la ci am ngànt kon nag yow en tant que jëm wér péng ah dara dalu la mu ngi ñëw critère yaa ngi ñëw sax jarul ma si détail mu ne kon neel war na ci kenn ku ne détail yaa ngay ñëwaat imaam Hadi Mbay mu ni kon fardun farata la alal axyaan si jëmm ju ne mu ne wala haa ñeel na nag julli juma imaam Mansour Ndaw surutul wujubi ay charte yoo xam lu war la yii moom dafa war si juma ñu war koo xam dafa am ay charte yoo xam lii ay charte lu yu war la si juma bàjjen nday isa wadd si randu leen bàjjen ñu ngi lay ziyaara bu baax ñaanal la suñu borom wadd yàlla na yàlla defal la jàmm yàlla na yàlla kàttanal la yàlla na yàlla sàmm la waay sàmm njaboot gi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Aline Diop marché Ocass mu noonu mu ne charte yii nag bàyyi ko xel maa ngi dem mu ne wala xaa ñeel na ko surutul wujub ay charte yu war si biir juma ñu bàyyi ko xel mu ne wa arkaanun ak ay ponk yoo xamante ni mu ngi ci biir juma te kenn ku ne war koo xam kon am na ay charte yoo xam yii yu war la yu ñu war a xam am na ay ponk moom juma yoo xam war na ko xam mu ne wa aadaabun ak i teggin yoo xamante ni juma da koo làmbool te na ku ne war koo xam mu ne wa axzaarun ak i ngant yoo xamante ni tubiixu dina waral taxallufa ak wuutaanaa walif jumaa ja maanaam di nga am ngant yoo xam bu la dalee ah yow jumaa dalay wàcc boobaa mën ngaa wuutu nag doo dem jumaa waaye bu amul nag ah dem jumaa dalay war nag du bu la neexee ma dem bu ma neexee du ma dem déedéet jumaa du noonu bu ma neexee dem bu ma neexul du ma santiru ma ko déedéet déedéet loolu nag yi mu la tënkal moom la la bëgg a leeral sëñ Mamadou Mbodj ñu bàyyi ko xel mu ne fa amma surutu wujubiha ndaal charte yi nga xamante nag yii ay charte yu war la si juma Serigne Bachir Kane ay charte yu war la si juma mu ne buñ la ko laajee neel fa sabaatun juróom-ñaar la ah charte yii kat ñu ne charte yi kat lu war la ci juma yi war si juma ay charte yoo xamante mënul ñàkk ñaata la neema juróom-ñaar la mooy yan ba ci njëkk al islaamu da ngay doon jullit mais que duggugul ci islaam kook du jullit kook taxul ñuy wax. Sama FM. kon ki nga xamante ni moo tax ñuy wax mooy kii nekk ci islam kooku la ñuy tuddee jullit moo nekk ci dawaa'irul imaan kooku la ñuy tuddee jullit soxna faatu mbay eh, efi kon kooku la ñuy wax soxna faatu Mbaye mu ni ñaareel ba wal buluuxu da ngay kon jumaa warul xale bu demee tamit rafet na ndax nag teel koo jàpp si loxo yi booy dem jumaa di ko yóbbaale mu teel a miin yoon bu la noppee gis xam yoon wi fekk tegoon nga ko fa day gën a rafet comme suñu mbokk yi ni ñuy gàddoo seen njaboot yi di yóbbu bu ñuy dem di julli ji kaza yow it booy julli ji gàddul xale yi nga xamante ni mën nañoo dox commencé nañoo euh, pratiquer julli nga leen di yóbbu ñuy miin bu ñu mesurer rek day fekk ñu miin ko bari na ponkal te bu ratee jumaa du feebar du ko déranger parce que tàmmul luñ ko ko bi muy doon ndaw moo tax am na ñoo xam bu ñu manqué jumaa rek dañuy feebar ratee jumaa dañuy feebar ajjuma tëkkale wuñ koog lenn mu ne yooyu nga bàyyi si xel mu ne ba ca des wala aqlu ah xel mi nga ko nag si bind yee ñu wees mooy surut euh, surutul imaam ya bi nga lay jàngal imaam critères mu war a mel yii yëpp waxoon na la ko waaw da ngay doon góor da ngay doon julit da ngay doon euh, kumaseur ainsi de suite bi mu dikkaatee fii nag di la jàngal wàllu juma si ñi mu nekk seen loos di surutul wuju bi xaay euh, wuju bi ah ba ca njëkk nag da ngay doon jullit ñaar da ngay ñett xel mi dafiy nekk kon ku ca ku fi sa xel nekkul ah kooku kooku kooku dalay wàcc na kooku nag moom waru la waaw kooku waru la kon ña fi seen xel nekk ñooñ la ñuy waxal mu ne ñeenteel ba wa zurriyatu da ngay góor kon gis nga doon jullit da ngay meseur xel fi nekk da ngay doon góor kon jigéen jumaa waru ko bu ko defee def na loo xam lu rafet la loo xam ne ah am na si ngëneel am na si yiw waaye bu ko deful it wàññi ko dara ndax charte luñ ko ko ala mazhab imam malik mu ne bi ci topp wal xurriyatu doon ngay doonus gor ah kon jaam jomaa waru ko ndax si dafa nekk si eh, si keppaaru keppaaru kilifteef dañ ko yilif buñ ko joxee ndigal mu am sañ-sañu dem buñ ko joxul ndigal amul sañ-sañu dem parce que dañ ko yilif kon kook charte luñ ko jomaa ci si loosam sartaluñ ko jumaa ci loosam mu ne bi ci topp wal iqaamatu waaw mooy ki nga xamante ni dafa dëkk nag si dëkk bi waxuñu kiy voyage al musaafir ki nga xam tukkikat yi dañ ne juus déedéet kon yow mi jumaa war day fekk nga dëkk Thiès nekk biir Thiès dëkk Thiès dëkk bi waaw dëkk si dëkk bi ñu ne ah, yow kat war na la waaye ki fi tukki quelques jours wala dellu ko charte luñ ko ko bu ko defee nag aha kay waaye da dul charte ci moom mu ne kon wala iqaamat ah sax da ngay sax nag mun la juróom-ñaareel bi mu ne wat seqat da ngay wér kon ki jagari ki di feebar ah jumaategul si loosam ndax wàcc na ko nag moo tax mun la moo ngi ñëw sa kanam moo tax mun la wat seqat ànd ak wér da ngay wér nag kon yii bàyyi charte yi moom mënta ñàkk yii yu war la wujub yii yu wujubaat yi lu war la ba ca njëkk da ngay doon islam da ngay doon jullit ñaareel bi dangay ngay ñetteel bi xel mi dafay nekk sa xel mi ngay xalaat boo ko defee nga xam doonoo nit koo xam xelam dafa dem ñu koy tuddee ki ki feebar di doxoon si mbedd mi yaa ngi dégg euh, ñeenteel bi dangay doon góor mat ko sëkk nag juróomeel da ngay doon gor juróom-benneel bi da ngay doon nit koo xam ko ku dëkk nga nag ku sax nag si dëkk nga fii nga dëkk fii nga fekk baax fii nga juddoo fii nga yaroo fii nga dëkk nag waaw sama kër fii la nekk mu ne nag juróom-ñaareel bi da ngay doon nit koo xamante ni nit ku wér nga kon looloo mooy ponk yi nga xamante ni eh, wujub yi nga xamante ni mënul ñàkk si islam kon bu ko defee dañuy dem service commercial bu ñu dikkee rek àndaat ak nekk ci li nga xam mooy arkaan yi doog a eggale li nga xam moom moo des boo ko defee fa tabaarakalla dañuy teg foofu suñu point daal di dem ba ñëw fas yéene jubluwaat si li nga xamante moom mooy ponk yi yi nga xam moo war si juma yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp kon ñu dem te ñëw sëñ Mamadou Mbodj Zik